Abdou Diouf ñëw indi ñoom Tanor ay doomam la ñu woon tan Abdou Diouf comme bàyyi fii Abdoulaye Wade Abdoulaye wadd indi doomam yi nga xam ne pare woon nañ jàng moom mooy ñoom Sindiély Wade ak ñoom Karim Wade mu leen di préparer pour ñoom ñu jël réew mi Macky jël ko doomam la ba léegi Macky Sall tamit bugg a ñëw bugg ñu bàyyi beneen fiisam maanaam keneen koo xam ne dafa yàgg nekk coggam muy euh, Amadou Ba Amadou Ba tamit jóge fi war fee bàyyi ak keneen donc loolu nag lañ ne loolu day dakk bu ko suñu maam yi nangu ak suñu papa yi ñun nanguwuñ ko ñun loolu gàcce la ci ñun ñun loolu ñàkk jom la ci ñun ñun ñoo saaga la ci ñun parce que mënuñu toog ñun bu balaa ñoo judd ñun kenn ci ñun judd fi 1960 ñun balaa ñoo judd balaa ñoo juddu rek loolu moo fi mës a nekk bu ñuy juddu di màgg ba tey day nii tey am ay 40 ans di gis la même chose loolu duñu ko nangu mënuñu ko nangu dañ ne dañuy changer affaire yi te ñooñu ñëpp nag ay produit blanc bi lañ à part Ousmane Sonko ñooñu ñëpp ay produits ci tubaab yi lañ demoon jàngi ji tubaab yi ñoo dugal ci seen bopp yi ñoo travaillé seen bopp yi ñoo def ci seen bopp yi ay mbir ñoo xool dañoo gëm ni ñoom ñoo gëm ñëpp ñoo gën ñëpp ñoom ñoom ñoo jiite ñëpp ñoom ñooy yàlla yi. muy Senghor ci tubaab yi la du Diouf ci tubaab yi la ab Abdoulaye Wade ci tubaab yi la Macky Sall ci tubaab yi la ñooñu ñëpp xeet nañ sax seen école réew Ousmane Sonko nag musul génn réew mi ëpp ñu ko xel. ëpp ñu ko xalaat donc yalla mi nga wone ni produit amna lu baax lu nekk seen réew. amna lu baax lu lu ma def ci seen réew bu leen yaakar ni réew yu baax yi nekk ci biti rek ñoo mëna am lu baax nit nak mën nga am lu baax sàgganee ko ba mu bon parce que nit mango sax dina baax nga sàgganee ko mu nëb orange dina baax nga sàgganee ko mu nëb tay ji même bo yoron fi ab banana bu bees tak di briller nga sàgganee ko bo da di nga fekk mu lax nga fekk mu ñuul nga fekk mu nëb donc ñun am nañ ay produits yu baax il faut ñu valoriser ko il faut ñu may leen doole pour wane ni yàlla am na ay wërsëg ak ay xéwal yu mu def biir Sénégal am na ay bopp tam yu nekk biir Sénégal yu musul voyager parce que Ousmane Sonko jàngewul bitum réew musul jànge bitum réew ci borom xam-xamu Sénégal yi la nekk Sénégal la jàngee donc wane na ni ñun suñu université yi day génne borom xam-xam ñun suñu école yi day génne ay ñu baax day génne ñu jub donc loolu il faut ñun ñu gëm ko loolu moo tax ñu bëgg jël usman Ousmane ko testé beneen format beneen système boo xam ni suñu réew la jàngee suñu réew màggee suñu réew yaroo suñu réew bëgg suñu réew mu jaral ko lu ne bañ ñu bañ a doon ay produit bu blanc bi formé defar ko configuré ko nu mu ko bëggee muy temee ci ay waawam ak ay déet loolu moom moo tax gis nga ñoom ku ci gagné rek France ngay daw Amadou euh, euh, Amadou Ba avant ñu koy def investiture sax daw na dem France Macky Sall bu mu gagné réew mi dafa daw dem France le daf ko gagné rek le lendemain la dem France Abdoulaye Wade pareil c'est sûr Ousmane Sonko boo ko gagné du gagné rek dem France amul complexe blanc boobu amul complexe système euh, babylonien bi babylonien bi du moins donc ñun dañoo bëgg le produit produit fini bu ñu am ñun suñu réew ñu exploité ko lu mun a nekk la parce que ñun ñii ñëpp on est des sénégalais de mais ak lu ñu ñëw kaaw kaaw kaaw dañ ne le séjour

parce que dîner moom mooy set diine mooy sel. que bu christianisme wala muy musulman wala dîner égal set dîner égal organisation diine égal ay ponk diine égal sellal donc bu fekkoon ñun suñu diine lañ top, ñun kenn duñu takk di ñu takkaleeg tilim kenn duñu takkaleeg euh, mal organisation kenn duñu takkaleeg sàcc wala voilà rek leneen bu faites ni dañoo bàyyi suñu ànd nag la ñuy dem ci leneen donc il faut ñu revenir encore ci li nga xam ne mooy suñuy réalité ñu jël ko utiliser nit boo xam ne ci ñun la bàyyee bàyyeekoo màggee ci ñun yaroo ci ñun amul benn système blanc bi jaaru ci xel mi ñu utiliser ko jëriñoo ko donc encore une fois mbégte la sénégalais nu ñu taxawee pour sa changement et ils sont très déterminés sénégalais ñoo la gën a bëgg changement dañoo bëgg a dundu leneen lu dul li fi amoon ak li fi amaat ak li fi amaat ak li fi amaat ak non sénégalais du nangu kenn di ko falal njiit kenn du ko falal lii loolu jeex na depuis ci Senghor Senghor def na ko fi sam suñu maam yi Senghor moo leen joxoon ab du juuf Diouf du juuf moo defar Abdoulaye Wade Abdoulaye wadd moo defar Macky Sall donc ñun dañoo ñëw pour break système boobu noonu mooy système mu sàcc boobu mooy système oligarchique boobu nga xam ni dafa am ay ponkali fi nekk sol ay ñetti Abdou sol ay maxtuum di naxaate du ñu wax dëgg di fenn ak ay ñeneen ñu taxaw sol seen i garam boobu ne ñii ñooy géwélu traditionnels yi ñii ñooy nangam ñu organiser ko def ko organiser ko ba mu rafet ñoom nga xam ne ñoom dañuy lekk ak a paasanteeka joxanteeka taggantey maam ak ñoom seen biir donc ils l'ont bien organisé c'est un système très huilé système boo xam ni dafa am ay nooxóor yu musul liggéey toog muy dox jaaxaan di caaxaan muy dox di tëdd saw muy dox di di puub muy dox du doxat muy dox non noonu lañ ko non lañ ko jàppee ñoo xam ne mosuñu des personnes de la moindre effort ñoo xam ne seen loxo yi dafa bees tàq ay pas yoo xam ne am nañ ans seen loxo yi bees tàq mooy wane ni mosuñu liggéey mosuñu def liggéey parce que micro la ñuy yor rek di tagg ay baaxu maamu jàmbur ne loolu mooy liggéey loolu amul fenn pour am émerger wul en France ni en Europe ni en Amérique ni en Australie donc warut a émerger au Sénégal tout ça doit s'arrêter nit yi dañu war a dem di liggéey nit yi war a dem di bay tool yi di dagg àll bi Sénégal yëpp àll la kenn bàyyi ko de Kaolack à Dakar c' est des centaines d' hectares des kenn bàyyi ko kenn ay nit a toog ne seen toolu maam la ko bu bay ñu ne la non grand li seen toolu maam la ko bay duñ ko bàyyi donc loolu lépp da fay dakk mooy système oligarchique boobu dëmm yi toog di nooxóor yi toog di séddoo alalu askan wi loolu day dakk dafay jeex dañ leen di futti ba ñu set ñu dem liggéey ku liggéeyul di nga tox ku liggéeyul di nga torox ku liggéeyul di nga torox ku liggéeyul di nga di nga lekk say day loolu day leer complexe boobu ñu amoon ci yenn nit yi dañ koy dañ koy démystifier mooy sénégalais bi day seetaan télé jàpp ni lépp lu jaar ci télé bi lu baax la lépp lu mu gis ci journal bi dëgg la loolu il faut ñu dënd ko ci xelu sénégalais yi noonu la leen la major Diouf naxe toog sol ay yërëm dof bu war a dem faju ji ñu war ko yóbbun fan wala ñu yóbbu ko dalal xel mu ñu tegale ko sa TFM di ko di ko valoriser muy wax waxu dof di wax wax yu ñaaw di wax wax yu àndul ak dëgg wax yu àndul ak wax yu àndul ak vergogne di wax lu ko neex et puis gars yi di am suñuy rakk yu ñuy yóbbaale yoo xam ni dañoo nooy bopp ñuy gëm ni kii benn référence la ba fekk du dara nit ku bon la chaque jour bu ñu génnee waa jàppale leen ndee la jàppale leen ndee la kenn du wax kenn du wax ne kii gars yi ñi nga wax ñoom naan ay euh, Sweet Beauty Sweet Beauty Sweet Beauty dafa am këyit Sweet Beauty du ndee la am na fenkat yi fi toogun waaye Sweet Beauty daa dem Sweet Beauty nit kay dem Sweet Beauty parce que Sweet Beauty dafa am ay këyit c'est légal on n'a pas besoin même fii fii c'est que Sénégal dañuy nax nit yi fooyee nit yi non eh, kii ki jangul ya a fen aji sar jangul massa da ngay fen fi dañuy jàngale sans diplôme fi dañuy jàngale sans diplôme ci buñ lay jàngalee lañ lay jangal ba nga am diplôme suite Beauté dafa am keuyit aji sar ñëw fa amul diplôme ñaata ñoo nek fi di liggéey fo xamni ñu ngi fay liggéey tay maîtriser ko ñëwewuñ diplôme man fu may liggéey dugaluma du diplôme dugaluma fa diplôme dam fa amé diplôme loxo nen loxo nen la fi ñëwé ak ay texte rap texte tubaab yee ma jël formé ma ci liggéey ba ba mu am fa diplôme donc kon Adji Sarr soxlawul muy dem di génne ci ay école massage ki jàng massage am diplôme massage muy lan muy ndey xadi am këyit moo ko fa dugal di ko fa jàngal di ko fa jàngal ba mu am diplôme xam nga foofu am na normal la foofu lépp normal la mais dañuy jëm a gëm loo gars yi non dafa jàng daf ko xam daf ko fa jàng

liir ay liir yu amul këyit quarante huit liir kenn amu ci këyit di ay liir yi dee muy jël ay glace def leen ci paanu glace jënd glace yu fukki dërëm yi liir bu dee mu dugal ko ci paan def ci glace ba mu fees dell yu fukki dërëm ba mu fees dell di di di congeler liir te pourtant noonu la doon taxaw ci media yi ay TFM ak ay xawma média naxa saxantang yooyu média corrompu yooyu noonu ñu ñuy valorise naa waaye noo jàpp leen ci kii amul këyit warul yor xare ay xale yi di dee comme des muus muy dagg ay nombril jël ay jigéen yu biir tëj leen ci këram ñu fay wasin muy jël raxas doom yi bàyyi la nga demal sa biir mu raxas doom yi dem yóbbu jaay ñëw naa ne leen Ndella Madior day jaay am ñëw xam nga Sénégal rek man nee naa leen damaa jiitu sama sama génération damaa jiitu sama génération moo tax dama leen di comprendre chaque jour ma ne leen man orateur prescient la man leen man euh, conscienti euh, conscientisateur bu prescient la lu tax may utiliser prescient mooy damay wax lu ñëwagut comme yenent sama peuple comme yenent laa fa doon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon wax bu waxee nit yi foog ni maanaam di ko weddi jamono di dem muy am dëgg ba suñ jonn yàlla tey tey jii Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi am dëgg Jésus Christ loolu lañ ko lañ ko jàppee danañ wax lu ñu lu yeggul ci ci ci ci peuple am ñu ko gëm am ñu koy weddi loolu la Judas génnee trahison parce que li muy wax dafa pression dafa weesu ñi ñi ñi jàkkaarloo donc noonu la demee man it bu may wax sénégalais yi bari duñu xam lu may wax et je comprends taxul moy tiit taxul ma dellu ginnaaw taxul ma damay insister ci limay wax parce que dama xam limay wax nu mu deggo du caaxaan foruma ko non non non non non non non non gisoon gisoon nu may togué des fois mën naa toog 4 jours 5 jours du ma wax parce que xamul tax man wax ji dama ci gagner wut dafa am ñu ci gagner loolu motax ñoo ñu di wax. di wala ñuy créer wax parce que dañuy gagné ci wax ji man gagnuma dara ci wax ji bu siw siw na avant wax ji siu may siw ci cassette la di rap di rap mun lu may def rap gaay xam ma ragné ma ci rappeur yépp Sénégal ñu ragné ma ci rappeur yi plus de 1 million de rappeurs ñu ragné ma ci donc dama ci mun lu may def kon fofu lañ ma xamé sama tur weesu live donc man dama jitu live yi donc bu dee tour amon nako avant live yi donc man wax gaañuma ci tous nix motax tax du waxantu parce que buma waxé nga gëm gaañewu ma nga ñak gëm gaañewu ma duma ma teree nelaw du ma teree lekk du ma wax damay wax deug dem sama yoon mën na fé gëj nak duma live bu ñëw tous les jours tak tak tak tak génne ko boobaa nga wax lo warta wax wala nga wax lo xamut wala nga créer bu amé solo ma wax bu ñaké ma nopi bu ma amul lu may wax noppi ma amee lu may wax wax mais li may wax nit du ko dindi te dama ko gëm nit du ko dindi dama ko gëm te que damay xam foo ma ko teg dama koy maîtriser dama koy dem gëstu ji yàlla dafa ci may ay porte ma dem lijjanti ba xam bu ma leen di wax ndeela Madior Diouf day jaay ay doom am na ñu taxawoon di weddi di weddi Ndella a ngi jaay ay doom ma wax ba ay maxu deux millions am na ñu taxa naan waxe non mais xamuñu xamuñu ne moolaa mii kii waxantu amul lu muy wër ci ci wax ji dëgg rek moo ko ci ñor yàlla ji rek parce que lu ma war a am ci wax am naa ko yàlla rek ma leen ndeera major daa jaay ay doom mais ñi nga xam ni jaay ñu seeni doom wala jaay ñu seeni sët mënuñu ko xam léegi nag dégg ngeen ba ay huit millions sax jaayee na ko doom man jot naa ay yaayu ma ay maamu doom ay maamu doom bu ma leen tegee fii audio ngeen daw am na doom ay maam yu muy ñëw di ma laaj seen i sët man man lan laa ci à part en en tant que un combatant bu ñëw jaayante bokk ci combat mais lan laa ci mais pourtant am na maam yu ñëw di ma laaj moo laa an sama sët moo an sama sët mun naa leen tegaloo jëy an sama sët man man man kenn dénku ma sët yoru ma sët combatant laa damay jaayante di ba di tay sama bakkan di joxe di lépp di ko def mais man kenn sama sët ndee la yorul sama sët ndee la yorul sama doom Ndella yoru sama dara te sama dara ñàkkul jomba ba ñàkkul fayda ba jël di ko jox Ndella di ko jox Ndella Ndella mënul yor sax doomam bu mënoon yor doomam taawam bi du nekk benn caga ñu biiral ko fële di taxawaalu pourtant taawam bi am na doomu biiral taawam bi dafa dem ñu biiral ko mais Ndella jëlul doomu taawam bi doomu taawam bi newul ci ci ci ci xale yi ñu yóbbu donc pour muy clair damay dugg ci combat nag ba jeex di tàkk bëgg ci réussite bëgg nit yi gis ci seen bopp point loolu kese moom moo ci am solo Ndella nag moom noq nañ ko ci kaso bi te waxoon naa ko gaa yi newoon naa leen Ndella bu fi génnee barke alxuraan dinañ def ëmmët ëmmët bu leen Ndella jarale loolu mais gis ngeen tey l'histoire mais Macky Sall sax démb wax na ko ci conseil des ministres moo tax sañu wax dafa am solo am na njëriñ am na solo dafay yegg fu sori am na ñuy dof-doflu dañuy gis wax ji xaw a dof lu mel ni ñun xamuñu ñu wa yow moo laa ki da laa xam yow kii ñooñu ñoom ñoo ñoom ñoo ñooñu <laughs> des fois des fois da ngay bëgg a wax da noppi gis na ab dof benn cogg Barthélemy Diaz naan kii Barthélemy Diaz xamu ko dama laaj ma Barthélemy Diaz demal nga ne Barthélemy Diaz rek ba bu muy ñëw Montréal fii di ma woolu maa saaga ndayam na ko bugguma la gis te Juda yow la Barthélemy Diaz rëy ci yow ngay wax ay Barthélemy Diaz non moo la barki alxuraan Barthélemy Diaz day day day day raam sama ginnaaw billaahi wallaahi wa taalaahi Barthélemy bu muy metti ba mu tar ba euh, kii di ko xeex lu mu euh, euh, di ko xeex <laughs> dama nga laaj ko ko ba Khalifa Sall di imposer Wardini mu jommi jaxle xamul fu mu jëm mu top Sonko comme xat na ma japp bo ma jàppalewul grand boy dom nday nanya orang bo ma orang affaire na ñaaw lambay na ñaaw dom nday doo ma jàppalewul di wo ñun man mi yag na ma wo de yag na jël telephoneam di ma wo man mola Morgan, mola def ci dara mola def japp ci japp ci japp ci mola xola japp ci yag na ko def mais ba mu falo la ko gëjë degg à part bu mu ñëwee fii naan ay mooy bu mu defee live am boobu noonu mel ni dof mel ni ko perdre xelam mooy bu mu waree rek ñëw fii dafa war rek ñëw Canada bu mu ñëwee toog ni ñëpp di ko yërëm muy muy def live maa ngi hôtel tal fekk ma ne ko dof man maa lay fekk hôtel yow yow yow yow xam yow man maa lay fekk yow man maa fekk hôtel di wax ak yow yow yow Barthélémy Dias yow est-ce que wér wér nga yow est-ce dofoo yow est-ce que bu ba léegi yow perdre sa xel mi man maa lay fekk hôtel yow lépp mënuñu ko wax ñi gars yi ngandal ci télé yi parce que ci télé yi lañ nekk di wax di band band lu nii duñu ci fukk fukk ñu ci bu ñu waxee lépp làmbaay ñaaw bu ñu waxee lépp lépp toj on peut pas tout dire des toog ci yenn affaire rek tëxuñu toog noppi mais réew mii ci ñuy décider dañ cee bokk ci ñuy wax ñi leen di déglu dañ cee bokk ci ñuy wax muy yëngal république dañ cee bokk ci ñuy wax di mbéj xel yi ba président bi di jóg di conseil des ministres di ci yëy di yàgg bi dañ cee bokk loolu yàlla moo ko def yàlla moo ko def dañoo bokk benn support nag moom mooy live bii ñuy wax ngay wax ci live may wax ci live nga bëgg maa def sa morom wala nga bëgg maa def sa nawle moo tax du n'importe qui laay tontonteel seetlu leen ma de du n'importe qui laay waxal du n'importe qui laay tontonteel man sama objectif mooy lan bu ma jëlee benn wax fee laa bëgg mu yàgg dama ko fay dóor mu yàgg moo tax kooku rek laay déglu kooku rek bu muy bu ma waree wax kër Macky Sall bu ma dóoree bomb kër Macky Sall laa ko dóor foofu laay ubbi sama nopp déglu yuux yi bu ma déggee jeex na ma ñëw toogaat xam ne ah egg na wala dugg na wala saf na point bu boobaa nag xam naa lan mooy réaction yi ñeneen ñi ñëw commencé dugg moo laa lii moo laa laa ñu ko ñu leen jege nga xam ne ah affaire ba yegg na parce que man sama sa li may li may xeex dama ko xam maîtriser ko nag yàgg ci yàgg ci trop donc Ndella Madior moom dugal nañ ko ci kaso bi jàpp nañ ko jàpp nañ criminel jàpp nañ reykatu nit ku jël ay xale You a plus de quatre xale ñu le leen qui ont nañ ki doon tamit nañ leen instant yi nice ñi ngi leen di fajj kenn amu ci vaccination plus de 48 huit amul ku ci ont benn pikiir benn pikiir tour yoy muy wax maa ko ko Issa Ndiaye kenn amu ci kenn amu papier de naissance kenn amu ci vaccination ñoom ñëpp a xiifoon ñoom ñëpp a ràggoon kenn amu ci lu mu lekk ak liir yi rek bu dalee ne la majoor rek day torox torox na ba noppi sax moom torox na ba noppi toroxal na xale yi toroxal na liir yi xeetu toroxal bu ñaaw xiifloo na leen marloo na leen jaay na leen ñii dee nañ mu suul leen ñii mu jël leen tëmbal ci ay galaas ñii ñu ñii mu sànni leen ñi vraiment ñaaw na ku bëgg naan jàppaleel Ndella Madior rek ne ko yàlla na sanday mel ni Ndella Madior affaire moom loolu la booy soutenir nit nit bu bon ne ko yàlla na sanday si sanday jur ku mel ni Ndella Madior yàlla na sanday jur ku ku nuróog ku lii yàlla na sanday jur sànni sànni yàlla na sanday jur sànni yàlla na sanday jur sànni ba Ndella Madior for ko ci ngay xam ba xam ñu moom ñaan na yàlla am yaay yu mel ni Ndella Madior wala am bébé boo xam ni Ndella Madior koy mujjee for toroxal xalé yi la def ray xalé yi ni di dag ay nombril ay jigéeni biir di dagal ay jigéeni mais c'est n'importe quoi bok kok mom effondré daanu na taxaw na nele ma nga ca kasso ba au suivant ku fi def lu bonne vie ci de nga de nga fi fang ngay def rang dang fang fi ñepp lañu affronter nak ku fi def lu bonne jamono ji kep ku bonne nga daanu kep ku bonne nga daanu c'est du n'importe quoi Ndella majoor nit ku boro ngi noonu nit ku yées ngi noonu nit ku toroxo ngi noonu bu duggee ci kaso bi nag dina toog analyser xalaat li mu def liir yi liir jirim la doomu jirim yi léegi nag jàpp leen yaay yi liir yi nga xam ne bëgg nañ jël seen doom dina xamal ni xale yi ñi ngi ci jàmm ñi ngi ci jàmm ñi ngi ci hôpital yi am na benn commité de suivi bu ñu organiser xale yi ñu ngi leen di jox maximum de vitamine xale yi moom ay squelette vivant lañ woon ñu ngi leen di jox maximum de vitamine piqûre yëpp yu ñu amul woon vaccination yëpp ñu ngi leen di vacciner ñu instant yi gouvernement bi ñu ngi ciy def dooleem kattanam ak mën-mën xale yëpp dinañ ñëwaat incha allah ngeen sensible tam ci histoire xale yi bàyyi leen bu ñuy wax waxu xale yi am ñu ñëw na ay focus fii focus fa respecté leen bakkanu doomu aadama seen focus boobu gënul liir seen focus yi gëmul gënul liir yi seen caaxaan googu ngeen di wax noonu gënul liir yi respecté leen liir yi respecté leen liir yi liir yàllaa ko bëggal boppam yàllaa ko sàmm jirim la te choisirul ñëw ci àdduna dañ ko dañoo def seen yi def indi ko amul lu gën liir amul lu gën bébé yooyu amul Sonko gënul liir meeting politique gënul liir ay waxi politique gënul liir respecté leen liir yi respecté leen doom yi respecté leen ñii ñu toroxal ay jërëm yu ñu jël dugal leen toroxal leen ñu tekk ci dund ak dee ngay ñuy wax wax loolu ngay wax ay waxu politique ay wax waxal ci kii waxal ci kaar waxal ci nangam respecté leen liir yi amul lu gën liir munu leen yëngu ci lu gën liir ci du saayir du baatin munu leen fi wax lu gën liir munu leen fi am dossier bu gën liir respecté leen liir yi respecté leen liir yi nga xam ni da ay victime lañu respecté leen liir yi am leen yërmande ci ñoom amul si politique boo leen fu mën a wax bu gën liir yi amul dossier boo leen fu mën a débattre bu gën liir yi respecté leen liir yi pour muy clair man bu dëgg jotee dama leen koy wax bu dëgg jotee dama leen koy wax point nekk ma seen yëfu caaxaan yooyu noonu seen waxi kasaw kasaw yeeg seen affaire yooyu noonu man kenn du ma directionné personne ne ma directionne du ma cogg kenn du ma jàgg kenn du ma doomu kenn kenn du ma directionné kenn yónniwu ma doxuma ci mission au On donc Ndella major, nañ ko ci homicide involontaire maltraitance d'enfants, mise en danger de la vie des enfants exercice illégal de la profession de médecine ouverture et exploitation d'une pépinière sans autorisation traite des enfants je dañ leen jaay traite lu leen ne dañ leen di jaay am ay dof nan la mën a nekkee jaay na ba jaay xale huit millions jaay na ba jaay ay xale huit millions y a quatre morts dee bu ñaaw ay liir yi dee dee yu ñaaw y a plus de quatre dis liir yu disparaître yu ñu ñii quatre millions ñii deux millions ñii huit millions rey ay doomu ba ay bakkan il faut que ça soit clair ba pare di di di non ku bon la ay bébé yu dé, waxon na len ko ne leen ay bébé yu dé comme bijou pata comme tuddee woon bijou pata mu dé mu dem jëlaat benen bébé tuddee ko bijou pata comme ça safuñu dara ci bijou pata mu tédé bijou bijou pata comme mom pour mom duñu wut ay investigation benen bébé remplacer ko tuddee ko bijou pata te xamul ñu xamul ni dara ñu dem ba lijjanti ne ndekete Bijou Pata daa deewoon da ko remplacé bébé yi ñu jël am nañu tudd Bijou Pata du woon kooku ay bébé Youssou Ndour dee na bébé Akon dee na bébé Zuleyka dee na bébé Mohamed Samba Ndiobène Ka dee na bébé Marema dee na bébé Bijou Ngoné dee na da ko remplacé bi ngi nii bébé Juma Jeng Jaxate na ñi ñëpp dee nañ ci deeyu ñaaw ci deeyu métti ay bébé yu matul sax un yoo xam ne qui sont morts dans des conditions très atroces bébé Akon moom bu mu dee ci paan la ko def basin def ci ay mbuusu glace ne da koy congelé donc bébé Madické Niang dañ koo jaay bébé Mbaye Dièye Faye un dañ koo jaay bébé Reine de Saba dañ koo jaay quatre bébé yoo xam ne daf leen jaay y a eu plus de cinq à six bébés yu dee quatre bébés yu ma jaay ñii huit millions ñii quatre million ba deux millions de deux millions à huit millions ay bébés yu mu jaay moom moo tax ñu ne traite traite des traite d'humain mooy mooy da jaay ay ay ay ay ay nit da jaay ay nit traite de personne mooy luuma da doon luuma ay bébé ay bébé da leen doon jaay luuma donc Ndella Madior ba deux mille trente huit duñ ko gis ci mbedd bi ba deux mille quarante huit duñ ko gis ci mbedd bi moom ak ay complice am waxuma nag ay mag yoo xam ni da leen doon jaay ya yaay caga yeeg politiciens yeeg ñoom yërim sekk nekk ci groupe yeeg ñiy jaayante ñooñu ay mag lañ loolu lu ñu def ñoo xam ñoom ñu leen jaayante voilà caga jooju ñu muy jaay moom ñooñu loolu loolu moom ñoom la en tout cas Ndella Madior moom dootu fi taxawati te beneen nit bu mel ni moom bu bon buy toog ci télé yi di wax dinañ ko wili pande voilà fii da ngay baax toog ci télé yi parce que télé yi day influencer ndaw yi voilà ñu war a tëj à vie à lañ ko war a tëj di xaar beneen nit bu bon bu génnaat sant yi ana ana ñu ko doon jàppale ñoom ñëpp daw nañ ana fankat yeeg soskat yi eh, eh, man boo boo boo jàppee dëmm rek ñu ñëw na non bàyyi ko non nangam ak nangam ak nangam nangam voilà Fatou Kiné Cissé bi ñu jàpp tey yóbbu ko ci kaso bi lan la def na ma ko kenn wax Fatou Kiné Cissé bu mu toogee doo ay waxu armement ay waxu nangam ak nangam ñoom Thierno bàndoom ñoo ko tëjlu ñoom Thierno bàndoom ñoo ko tëjlu ci mbirum armement ci ay waxu ay armement waxi armement kese ñu fenal ko sosal ko tëj ko Fatou Kiné Cissé wax leen ma lan la def rien du tout absolument rien ñu jël ko tëj ko ci kaso yi ci ay caaxaan mu naan eh, de poursuivi de diffamation divulgation de données personnelles et de diffusion de fausses nouvelles Quand la ñu toj vite fait Fatou Kiné Cissé directrice de TAR Project Mamadou Seck de transféré Mamadou Seck on a bientôt rek incha allah dinañ faire. ak Mamadou Seck poursuivi de diffamation divulgation de données personnelles day fen fi amul benn données personnelles bu euh, Fatou Kiné Cissé wax seetaan ngeen affaire bi Sénégal amul benn données personnelles pour Fatou Kiné Cissé wax amul données personnelles. personnelles. lu Fatou Kiné Cissé wax yëpp waxoon naa ko fi lépp waxoon naa ko ban ay contrat armement yi la doon wax yu Koulibaly signé yoy man génn mako ko ci internet bi di man bi mako tassaré c'est pas des données personnelles c'est des contrats yo xamni ñom ñoom joxuñu ma ko maa ko jëlee ci kaw ñañ euh, ñi ñom wa Pittsburgh buñ ko liggé buñ lijjanteel euh, wa Russie man mi mako ko ban données personnelles la hmm amul ben données personnelles Allez, diffusion de fausses nouvelles, ban ban ban ban ban fausses nouvelles. la diffusé ban fausse nouvelle ban mais nan nga mën divulgation de données personnelles diffusion de fausses nouvelles. mais nan ngay defee ngay divulguer ay données personnelles après mou, mu mujjee doon fausses nouvelles. mais ay données personnelles kay est beaucoup diffusé du don fausses nouvelles, diffusion de fausses nouvelles, kon kay loolu du fausses nouvelles. kon kay données personnelles kon c'est pas possible ay fen mais Mamadou li Mamadou Seck la mais on l'a à l'œil Mamadou Seck on t'a à l'œil bientôt rek bientôt ñu ngi fi quatre-vingt-dix-neuf pour cent ñu dugg ci kaso bi yaa yaa leen fenal sosal leen yow Mamadou Seck le juge Mamadou Seck deuxième cabinet d'accord yow del cabinet bu baax del cabinet bu fais ça la sa cabinet nga koy ngàcc rek di cabinet di ko ngàcc di cabinet di ko bientôt inshallah dans deux mois deux mois incha allah dinañ lijjanteeg yow di nga xam ni ñu nit ñi ngi fi gis nañ li ngay def lépp continue comme ça del cabinet rek yaa ngi deuxième deuxième di cabinet rek del cabinet rek incha allah yow maa xam jàlloo léegi rek léegi mu jeex léegi jeex na ba pare souffrance jeex na sénégalais dañuy tàggoog moom jeex na continuer premier deuxième cabinet maa xam jàll premier cabinet Mamadou Seck deuxième cabinet da leen cabinet bu baax toog leen ci kaw premier di cabinet rek ak deuxième di rek dañ leen lijjanti cabinet leen bu baax lu fi des bëreetul cabinet leen bien bon allez allez-y cabinet leen bu feesee ngeen mocc di tour rëbës leen cabinet rek di di tour rëbës bien bon d'accord y problème dinañ ko de toute façon lépp dinañ ko lijjanti bu soobee yàlla voilà donc euh, di wax ni yaay liir yi ñoom ñu xaar seen liir yaay liir yi am na ñuy xaar seen liir am na it ay yaay ay maam yi yi laaj seen seen seen yi laaj yi laaj seen i sët am na ñuy laaj seen sët voilà am na ñuy laaj seen sët damay euh, damay jot ci message ñëpp ñoo ñoo bari moo tax des fois du may du ma bugg di def live rek di teg parce que dafa mel ni Sénégal yëpp Sénégal yëpp yëpp daa tegu sama kaw mais maa ngi koy sante yàlla nag maa ngi koy sante yàlla bu baax a baax a baax gis naa espoir bu ñu am ci man voilà maa ngi koy sante yàlla bu baax léegi bon di af araftu di araftu léegi nag ñi nga xam ni politique moo leen intéressé mun nañ ñëw parce que gis naa ci sànq bu may def euh, laaj ñaari fan yëpp bu may wax ci kii am ay ñaari ñaari nit wala ñett ñëw naan noo waxal ci lii waxal ci laa mel mel ni ñu yor poupée mel ni ñu yor poupée magum jëmm sax yi bijjaaw sax euh, euh, magum jëmm dugg ci internet fekk ko mu ubbi live am di wax waxu fulaam nga ne ko yow waxal ci lii waxal ci lii non non bul wax ci loolu waxal ci lii. Hmm? des fois nag tey si chance gars nga gis ay nit yoo xam ne da te demande ñi ban planète lañ jógee. kilif magum bu taal portable am ñëw ne moom lii la bëgg wax nga ne ko non yow waxal ci lii non non non moo ci lii. waaye <laughs> bu ma la mayee lépp sax bul jël lépp ma la mayee lépp sax bul jël lépp ah. dañuy fekk ñuy waxtaan ma may la lépp sax bul jël lépp nit du la jox rek nga bugg a këf baaraam ba wala nga bugg a këf loxo ya hmm? tuuti xel tuuti xel tuuti ah xel tuuti déglu rek dafa am nu ñu organiser woo lu dañ ne lii la ñuy wax développer lii sujet verbe complement bu ñu paree xam nga thèse antithèse synthèse ndànk rek <laughs> mais tamit nit du la may lépp nga jël lépp ah ponk lu mu lëmb day ni bàyyam ñëw toog di wax ubbi laay di wax nga ne ko waxal ci lii waxal ci lii waxal. bu la tollee fofu kat nga sa voilà ah <laughs> ok légui li ci politique social politique le 30 loolu ñëpp xam nañ ko ah, investiture Ousmane Sonko Sénégal ñu dem assister ko am solo la. buñ jëgé ci lool it ñi wax ni di dankafu encore une fois jiji surtout ki nga xamni moy Mamadou badjo Camara ak ki nga xamni moy Cheikh Tidiane di dina dankafu bu baax dina wax ni tal leen seen auto ngeen genn ngeen doxantu bir senegal ngeen wër ngeen deglu senegalais ngeen xol kanamu senegalais ngeen jang psychologiquement senegalais di ngeen comprendre lu bari loo xam ne soxlawuñ ñu leen koy wax di leen dànkaafu bu baax nag dégg naa réveillon yi foofu la leen Macky Sall invité ki nga xam ne mooy Mamadou Badio kamara ak ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Coulibaly euh,